di ñaanal leen yàlla mi yore jàmm bu dul jeex yàlla jox leen jàmm euh, nit ci boppam lépp lu muy liggéey da cee def fulla euh, maa ngi wax Sénégal yëpp maa ngi nuyu ab Abdou Mbaye waxam moom lay tontu bee léegi Abdou Mbaye bu nee moom a dimbali de man yaakaar naa dafa juum parce en quatre xaw ma ko te biyaawu maa ngi moom bi muy ñëw biyaawu fekk maa ngi liggéey biyaawu man Mali dafa tas balaa ñu àgg ba ma ko ñu décidé ne dañuy defar seen xaalis bopp am kenn koo xam ne mu ngi dëkk géej way ba léegi bolof la waaye baala sant ak keneen jaawandal bu sant saam kooku fuutal dëkk ñu ne ma ah, maliens yi kat nee nañ day soppi seen xaalis def seen xaalisu bopp suñ defee seen xaalis bopp nag day am problème ci ñun tubaab yi ñu yóbbu crédit lyonnais la ñuy liggéey boobu nag crédit lyonnais mu ngi am euh, kii am ci kër Pirisac kër Pirisac bi nekk booy boori marché Kérémet foofu la Crédit Lyonnais nekkoon mu ne dañu bëgg nga dem ubbi Crédit Lyonnais fekk cinq poste la am mu ne ah waaw ma dem Crédit Lyonnais ubbi compte bee yàgg Crédit Lyonnais jaay ISB euh, ISB remplacé amoon naa sax problème parce que virement bi jóge France ñëw ma ñëw di laaj suma xaalis euh, indi versement bi wane xaalis bu bu ñëw mu ngi nii benn suñ benn mbokk tuuloo mu ne ah banque bi jóge na fi ma ne ko banque bi jóge fi yóbbuwul suma xaalis mu ne ñu waxante ba yàgg mu ne ah kii de booy woon xotti ko ma jox ko carnet bi ana ko am mu xotti carnet bi ci suma kanam ma dem laaj ñi yor banque bi nañ lañ tudd ñu wax ma kii sant soow ñu ne kii Guinée yomb tuuti mooy directeur adjoint mu Santa Gaye ma dem gis ko bi ma ko gisee ma ne ko ah man de ñëw naa ci banque bi am naa virement mu ngi nii jóge France te suma compte amoon na xaalis ki seen gardien yi ci bunt bi kenn kii nee na ma ah, banque bi nekkutul fi ma ne ko waaye yóbbaalewul suma xaalis banque nit ñuul moom li lii fii tëj ci suma kanam soixante jëm léegi kenn xamul ñaata la parce que dañoo yàkkam ci seen àdduna bon gay boobu mu ne ah, jaaral nii ñu tase ji fa ñu jaar ñu tase fa mu ne kan moo xotti sa carnet ma ne kii mu ne ko waaw yow lu tax ko ni carnet mu ne carnet bu yàgg bi nga xam ne banque bi nekkoon fii mu ne waaw banque bi nekk yóbbaalul xaalisam te am na xaalis tey trois cent cinquante mille bu joge France ñetti solde yi ñu jëloon yóbbu leen Mali yónnee nañu seen xaalis tey kayit baa ngi ni dugg na ci compte bi lu tax nga compte kasam mu ne ma dama lay laaj loo bëgg ñu def ko ñu def ko loo wax nañu ko def rek moom lañu koy def ma ne ko man de bu dee suma xalaat ñu yóbbu ko fu ñuy nitalee nit ndax mu nite nitewul mu ngi taxaw gay a ngi taxaw ñépp a ngi taxaw mu ne kon nag comme que yow may na la sens defar leen ko carnet ci taxawaay ñu defaraat ma benn carnet ba yàgg mu toog ay at ma ñëw solde suma compte USB ma ubbi BAO ubbi B6 ubbi société générale fekk na commencé na am dara ku daan doon jaay duubal vinaigre ñetti 15 war de sawil kilo ceeb juróom benn dërëm lii ñetti dërëm genn wa am na potu dërëm ak fifteen diwlin potu dërëm ak fifteen diwlin am na genn walla walaat douze francs am na wa walaat vingt quatre francs am na genn wala litre quarante huit francs litre quatre vingt seize la lay dëkk xam nga bu demee ba jënd léegi patron la nee na may jaay benn man kay lépp lu xaraamul ci lekk su ma ko jaayee sant naa yàlla parce que boobu amoo amoo woon fu may jaayee beñe waaye su ma jaa sama am fu ma jaay ko parce que liggéey la man kay ñaar rek laa waxoon ne duma ko jaay sàngara ak cigarette cigarette yi demoon nañu bee am toog ku benn tukulóor boo doon firi boori ri cinq mu sant daat jàng na sunu suma maamaati maam boobu ceenu xaalit ba mu gisee suñu papa bi ñuy wax gu gu julde jàll boobu moo yore tiire bi ñu toog am ku ko laaj puun xam nga nit léeg-léeg mu réer ñu ne ah ñun de luñ gis ci alquran kulu mimmaa fil ardi halaalan tayyiban lépp lu sax ci suuf baax na kulu mimmaa fil ardi halaalan kulu naa razaqnaakum waaye am na fu fu mu fu mu yàq yëgul même suñu papa boobu dañuy wax fuuta amul moroom morom mu tollal amul lañuy wax teeru julli jàll tudd waaye loolu yëpp fay nañu ko am koo xam ne xale bu ndaw ku jàng may wax ak moom mu ne bookar dañoo juum rek wala tulgu bi ay diyakumaa ila taalukat te ci benn yib bii la nekk seetal rek fi ñu wax lalee lalee mu ngi foofu bi mu waxee loolu bi yàlla def boobu taal sum papa boobu mu ngi ci kër gi moo ko waxee mu ne ah kii de xam wax lu la wax dëgg la lu lu lu ko soppi bee melatul nu mu meloon mun na xaraam fekk loxo nag a ci dox e, man fekk na may liggéey d'accord te bi may liggéey biyaawu konte wu ma ay tubaab laa fi fekk may liggéey ak tubaab yi bateau bi ma jëkk a indi biyaawoo defaluma daaral maa la ma ko defal septembre 1985 boori le 29 bato ñoom nu ñuy jàngi alquran ak ni ngeen di jàngi tubaab du benn bato bu ngi tudd Alexandra kii mu ngi gaare woon Moulvite le 29 septembre 1985 la jëkk indi bato boobu it Abdou Diouf moo wax ci rajo mu ne dugub manqué na Sénégal ku ko mën indi ma dem en ambassadeur Égypte comme que ci loolu laay yëngutu tuuti ma laaj leen ñu boole ma ak seen chargé affaire mu ngi place de l'indépendance parce que ñun boo mënee jàng it il faut nga mën a bind nga xam date yi nga xam lu mu bokkal ne ma ah mu commandel ma bateau bi mu ngi jóge Argentine mu ngi ñëw ci date yi ma leen wax may liggéey ba yàlla indi ko biyaawu bi ko yàlla indee biyaawu ñuy liggéey lu mu def moom ak banque bi xam man xaw ma su ma njàng àggul foofu ñu dàq ko mu woo ma mu ne Bocar man kat jóge naa biyaawu maa ngi banque centrale dem bëgg nga ñëw fii ñu waxtaan dem waxtaan ak moom mu ne ma am na naaru gànnaar bu indi fi xaalis bu bari bëgg ñu def banque waaye étude bi dafa seer ma ne ko ñaata mu ne 10 millions ma génni carte car carnet CBAO defal ko chèque 10 millions ñu defal étude bi mu pare ma jox ma ma yóbbu kër Mamoud Touré Mamoud Touré xool mu ne am na erreur naa dem jëli ko ma dem jëli ko yóbbu kër Mamoud Touré ñu ko fekki te bu mu yaakaar ne nit ci boppam li mu loo gën a fi yéex nag. sa atte ci àllaaxira gën a yeex parce que da ngay tudde ci pax bi lu tolloo li nga dundoon ñu di la koy laaj yàlla yàkkamte bul lii la doon jaay lii la doon def ak waaye musu musuma xam ne këramam na reer de lii am mooy tey biawa bëggoon ñu juboo ñu juboo atlantique bi bëggoon ñu juboo ñu juboo bisik bi mu bëggee ñu juboo juboo naa ak ñoom banque islaam maa ngi léewtu ak moom am na lu ñu ma tooñ maa ngi leen yóbbu ci yoon banque yëpp ñoo combine ñu ne kii dafa dëgër boppu ndongo la moo tax léegi xam naa li tax tubaab yi bañ ndongo di wax ndongo ndongo ndongo ñu gën a garaaw ndongo boo demee jàkk ji waxtu boo selma la gis ñu yelbaan du ñu ndongo kon nag kay nañ wax ndongo la li ñu ko contrôlé gumbu kay bu waxee nañu sànnante xeer xamal ne bu jóoru ŋabbul xeer yi jóggi na xeer man tooñu ko duma ko waxal mukk jomb naa wax jomb naa wax loo xam ne du dëgg man bi ma ñëwee fii bi ñu suñu papa jëlijee Mali fekk def naa fa six ans sàmm naa six ans jàng naa alxuraanul waram six ans sa sàmm naa six ans dem naa Mali def fa six ans 44 la ma fekk ma jóge Mali ñëw Bakel am ku ma gis ñu wax suñu papa suñu papa jëli cinquante 56 ma liggéey tropical tribunal bi nekk kan manil 9 mois ñun su béy jotee lépp lu ñuy am béy ak ñu ginal suñu béy ak seen béy du benn ñun duñ béy nawet taw duñu ko béy dafa am lu ñuy béy ay wàlleer ak pale ak yu mel noonu ak kolanga ma dem béy am ma ñawaat amatuma place lii moom ma duggal ci baana baana bee ki ma bokkaloon place bi ñu mayee taabal yi 58 Sandaga ma dem ma am juróom-ñaar fukki junni bu may ñibbi ma dem société générale ma wecceeku yépp fukki dërëm ma may ko ci benn ngoon ñëw toog parce que boobu defoon xaalis doonu ma ko dara parce que ba yàlla defee nga am nag yu bari wala nga am xab yu bari nga ñu di xam na ne jaar ga nga te tool yu ñu am moo ñu gënal jama léegi nag tubaab yàq nañu parce que bi ñu defee baras tool yëpp yàq nañu boo demee ay xorndol de ay boori waaw ndek tool yu baax yu meloon noonu yëpp tubaab yi yàq nañ leen waaye ñun jote wu ak tubaab yi parce que defe ne dañuy wax ñi ñuy suñu taalibe ñoom nag comme que ay taalibe tubaab lañ nit toujours ñemewul sëriñam waaye nag ko bëri na nag man kër bii ñooy rey fii seen bopp kii mu ngi nii maa ngi ko jënd janvier 1984 mu ngi nii cent million xam nga lu ko tubaab yi jëndoon 45000 45000 la ko tubaab yi jëndaloon jëndoon xam nga ku jënd mille jaay cent millions dara gën koo neex fay nañu it privé yi dabuñu res xam nga am na ñu bari bu ñuy jënd kër di jaay bu ñu jëndee du ñu déclaré duñ jënd waaye ñii comme que société bu mag France bu ñuy wax Nobel Bosé. bu jëkk wurus la doon def ba yàgg mu commencé defar ay balu fitin ak ay bomb man bi ma koy jënd ay bomb ñoo faa nekk ak ay balu fitin mooy Nobel Bozin ñoo ma ko jaay cent millions facteur kii acteur wante baa ngi nii janvier 1984 li may de def day fekk ma xam ko boo buggee jàng saar boo mokkalu dangay ngay jàng erreur saar booy ngay jàng day fekk mokkal nga ko gis nga euh, kii Moustapha ma Njaay moo ma ko jaay cinq cent millions taab bu ma ko jaayee mu juróom benn magasin léegi bi ñu ko tubaab yi defee mu ne bookar fay na boram defal ko mellewee moom lañ jox joxuma parce que moom moo leen defaloon kii bi soo fekkoon man amal naa biyawu xaalis du ma faa jaarale onze milliards duñ jël seen xaalis du ma nangu xam na ne comme ak dul mbay bor bii laa fa amee woon quatre milliards huit cent deux millions deux mille et mu ngi nii fay naa ko benn signal ma ne fay naa ko mais Abdoul mbay boobu compte yi la ñu am compte biyawu bu ñu ubbi woon soixante onze ba jour bi ñu koy tëj am na xaalis xaalis bii lañu ñu waaye ba léegi bi biyaawoo bu newoon tey nañ jubo ma juboog ñoom Moustapha Ndiaye bu ñëw euh, kii mu tëdd euh, Atlantique bu neew nan juboo ñu juboo munuñ wax yi lii moo ñu booleeg bokkar Abdoul mbay nag ak Moustapha Ndiaye dem ci yàlla rek ñu ne yàlla day nee na fii ngeen di aw ñoo moo xam fu ñu ñuy awal ñu aw fa waaye baal ma munul am ñoom ñaar tooñu ma leen man xam naa tooñu leen ah boo fekkee li nit di nitoo kay moo xam man tooñu leen moom am na benn bis bi tubaab yi décidé ceeb dem 700 francs man ma bañ ma indi fukki bato euh, fukki bato ak benn réglé ko dama jaay bee moom ci boppam mu nekk directeur banque bi mu tiit di ma laaj bi xaalis bi mu jogee ma ne yëpp àndal ak ñetti nit ngeen xool du ma jël xaalis ku ñëw indi du ëpp am million ma ne ko kaay ma defal la suma compte banque nga dem versé ci man mënuma encaissé xaalis parce que nit yi dañuy bari ay trent millions 50 ba ma jaay léeg-léeg 800 millions benn bis kooku yàlla ma ko yónnee rek waaye du du liggéey bon léegi nag lii la doon amee maa ko dimbali man de. lenn laa ci xam musuma xam ne mbar day reer de ñun daal lu ñu xam bi ceeb amee ñuy jaay nit mun nga gis sax nga jinde jaam ci coggal nga bëgg jaam bi nga ne ko bon dama lay def taara waaye du ñu takkantak ñeeñu de wolof yii nag boo amee bayre walla nga tiim dara rek du ñu la laaj loo doon ñun fuuta ba léegi am na ñi nga xam ne yelwaan moo leen gën sëy ci yenn xeet yi man jomb naa fen su maam far faawura bii nga xam ni moom laa tuddee benn société bii falu na vingt-huit ans poste bi ñu ko digaloon mu tudd poste balaaji ba bis bi gouverneur bu ci mësa fanaan deer tubaab yi nekk nañ fi ba jóge fi ñaari gouverneur la ci fanaan soo demee ci dikk bi bu ñu nee Bocar moo wax lii dañu koy seet parce dañu wax ah, Bokar day seetu far faabu la seetu Ceerno Xaadir du ci wàllu yaayam Ceerno Xaadir moo jur suma yaay jéew la sant jàll dikk far faawul moo jur ki jur suma jéew la sant jàll dikk damay bëgg ñoom soo ñu bëggee jàmm ñu woom lu ñu laaj ci jàmm maa mu ñoom biyaawoo mun na nekk parce que bi ñuy jaay biyaawoo ñii ma woon boobu ñu ngi réunion courage sidd boobu xaw ma fa ab Mbaye nekk. bëgg jàmm du tee ñoom dafa waxuma xaalis man xam nga xaalis bu mu tudduma ko ñoom xam nañu man xam na man bi ñuy jaay biyaawa bu njëkk ci sa gouvernement Abdou Diouf ri courage sidd la ñu ñu ne ma loo bëgg ci action ñu may la ñu ngi koy jox mimara ma ne bëgguma banque dafa xaraam man ab bi ma duggalee ci. xaalis banque bu xaraam ci la am problème jàng naa ko ci arisaal jàngu ci yeneen tiir man dama bañoon bëgg waaye am rek ñu may la boobu bu yaawo bi siis bii mu ngi koy bëgg a wanaasu li may wax am na ñu ñi ko fekk xam nañu ko bi siis moo ko doon bëgg a wanaasu sottiwul ñu réunion Croix du am na ñu fekk woon xam naa leen ñu ngi dund ñu ne ma waxal loo ci bëgg ma ne bëgguma ci dara kon nag bu ma wooyee mu dugal ma ci banque tunisio sénégalaise boobu man yàlla moo wax ne def nga lu bon il faut ma te xam nga ko il faut ma ma nattu la. man dama ma woo suma kër rek man wa werentiw ma dama ma woo suma kër rek mu ne am na fii ku indi xaalis kaa ñuy def banque ma ne ko waaw parce que bu mu nekkee ci ñun biyaawoo mu ngi woon liggéey liggéey bu kii te man versé rek aw xaw ma fu mu dikk xaw ma fu mu dikk boobu sax jour bi mu gisee bëgg gis. suma kër yarax ak solida dafa tiit fekk joxoon naa ko maa ak suma rakk ñoo bokkoon liggéey fukki titre foncier ak benn man compte ma man yaakaaruma ban parce que ku liggéey depuis amoo fukki junni nga liggéey bee di indi ñaari téeméeri bato maa ngi liste mu ngi fii kon yow da ngay yàlla xiiwal na la ba pare xalaatoo lu mel ni xam nga xalaatoo lu mel ni amul benn banque boo wax ne lii moo ma booleeg bokkar dafa respecté wul engagement am lii laa ko tax ma dàq déedéet ñoom kay dañu wax ne kii taalibe la yeewu na nañu ko fexal ndax ñu rey ko waaye du caagin lii nga def ko kenn mënu ko wax kayit bi ñu ma bindoon jour bi ñu tëjee banque bi même ñëw naa di versi ñu ne ma tëj nañ sa compte ma ne verse ko ci ma verse ko ci fooy baa ngeeg man te boobu dàq nañu ko moom man man de wax dëgg yàlla am na benn yoon su ma juumul tase naa ak moom banque su du laal li ma wax fii ci fan yi man jotewuma ak moom dara déedéet papam nag mu sama defal lu baax du ma fàtt en 66 ma jënd kër décembre 65 66 ma dem ki loyer bu faa nekkoon nekk diriyànk ma dem bee layoog moom tribunal bee génni ko huissier ñëw duggalaat papam bi ma ko jugee maag Ismaïla Meng la wax dem leen ba suba subaa bi ñu ñëwee dañoo wax ndaw si bul faa fanaan tey mun nga fanaan comme tribunal nga yëngu waaye jëlal kër jàmbur kon papam defal na ma maa ngi ñaan yàlla mi yor du jeexal yi yàlla na yàlla baal papam waaw moom moom ak Moustapha Ndiaye boo boole woon Sénégal Mauritanie euh, Mali Guinée Bissau Guinée Sékou Touré Gambie juróom benn yëpp nga jox ma nga ne lépp loo ci def muy war duma leen baal jomb naa fen dangaa xamul rek man jomb naa fen voilà leer leer na defe man li ma la wax soo jëloon lépp nga ne ko lépp teg naa sa loxo loo ci def baax na ma ne ko man mënuma ko baal yàlla rek moom ñu mën a att keneen nag danaa sabablu parce que soo jiyee tool nga xam ne béykat xëy na yéen béy du ngeen baykat nga ji tool saxul nga jiyaat saxul nga jiyaat saxul ba yoon suñ tool yi xam nañu loolu am na ma ne léegi damay jéem rek su ma telee ma xam ne tele na su may doom yi eh, am na yàlla def na am na ñu ci jàng maa ngi leen di won di bu ma dee ñu doon na ko xe konte na xeex rek su fekkoon ñun ñoo toog léegi ak ñi nga xam ne toog nañ ba reculer Biao xam na ne bato bi bu muy jógee gini di ñëw fii boobu ak indi naa fukki bato ak benn ceeb ak ñaari bateau mboq ñaari bateau dugub benn bateau repas mooy 15 bateau xam na ne bato bi bu muy jógee Guinée fekk émote wat fo am foofu en vue lañ waxante maa ngi këyit yi en vue yi en mooy waruñu ma jox këyit yi fayu bu mu indee traite ma ne ko déet bi bateau doo am traite te boobu ak tijaare Paris la ñu waxante kayit bi ñu may xaalis bi ñu may wax dañu may topp société générale lu ci boole société générale man xaw ma lan la comme que man ak tijaare Paris lañu ubbi woon te waruñu ma jox kayit yi mukk fayu ma fay naa bi ñu jox ma benn bateau bi de déchargé bee dem yoonam société générale indi ay kayit ma ne ko waaw man lu ma jotee kayit baykat yi dañu wax ne bateau bi bu ñëwee du ñu ma jox kayit ma wàcce marchandise bi tànk fayu mooy en vie en vie nag ko indi ñaari téeméer ak quelques bateau kay wax dëggee yàlla même bu jàngul affaire bi miin na biyaawoo mos na vingt 87 boobu xam na affaire boobu waaye boobu nekkul biyaaw bateau bi moo bi lettre de crédit kayit yi ñëw jiitu bato bi ma encaisse kayit yi xam nga bu encaissé rek banque bi da koy fay man xaw ma woon loolu boobu maa ngi taxul ma miin ko trop boobu su ma juumul mooy su ma juróom benneel bateau ak yooyu ba mu fayee fekk man assuré naa mboq mboq la woon assuré naa tout risque Sonam layoo naa ko 5 dollars jot suma xaalis Abdoul Mbaye moom banque bi ñoo gën a xam xaalis bi fan la ne dañuy dañuy dañu doon jéem rek comme ko jàngu loolu nag erreur la benn xaj bu doon saw benn xaleel boo papa mu ne suñu xaj bi kàllafe na fekk limaam Malick mu ngi toog mu bàyyi bee xale bi pare mu ne waaw xañ nan lay kàllafe mu ne xal xaj bu kàllafe du saw ci tànkam nii lay def saw bi am fu muy daldi wàcc bu dee xaj bu ndaw nag nii lay def tànkam la Maalik teg bu ko teg ci wetam ñu ne ko kii sobe la mu ne waaw yàlla moo wax ci alquran wa man allamaka xarfan waahidan huwa mawlaaka ku la xamal loo xamul kii lu ma ñu xam xamaluñu xamuñu ko woon ndagam nag loolu atte la sakkat nag ci jàng jàng tubaab yi léeg nga jàngaloo loo xamul léeg-léeg nga jàng xamul téere bi ma ne la man ci suñu bopp toog naa bi ñooñu ñu ñu gën a bàkk ci Fuuta kenn ki Ibrahima daal du suma mbokk waaye jàng na suñu kër maam ki jur suma yaay ki jur suma yaay kër jàng ci kër ñu lépp luy sax ci benn xale rek moom na fu ñu wax ci alquran boo ko soppeek rox mooy bi aydiikum ilaa kon jàng du jeex xëy na nag ñàkk xam ñàkk xam mun na riirloo nit xam nga nit mun na jàng fekk xamul ñun gis nañ ñi nga xam ne jàng nañ bi am isage xa soo nee ndeyjoor sax dañuy lay xool ñu ne ah nday xamuñu seen ndey càmmoñam nday